yaa ngi woon ci biir demoon ci denc bi kàddu yu gàtt rek lan ngay seere ci jëmm ji fi bàyyi ko sëñ xanaa seere ci moom nit la woon koo xam ne ku bëgg sëriñ Touba la doon ko liggéeyal amul woon guddi na amul woon bëccëg na ñu ñaan yàlla dajale ko ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mi nga xam ne doon na ko liggéeyal. li ñu ràññee ci moom mooy ràññee woon nañ ko ci kanam xalif général des mourides sëñ Sidi Mokhtar ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Paké ba ci sëñ Mountakha Bassir mi nga xam ne moo fi ne waaye képp koo xam ne xam nga aatu la nga xam ci moom mooy liggéeyal Serigne Touba ku bëgg Serigne Touba doon koo liggéeyal moom ci la nekkoon guddi ci la nekkoon bëccëg te xam ngeen ni liggéeyal Serigne Touba ci la lépp nekk ndax Serigne Touba moo ne wa kullu man xaddama nii aw saara fa naj nii wax fi loo aw saara képp koo xam ne liggéeyal nga ma yàlla maa ngi ñaan nga tàggale ko ak bakkaar kon am nañu yaakaar ci moom bu baax ñu ñaan Serigne tubaa teeru ko dajale ko ak sëriñam boobu nga xam ne amul woon lu dul moom daje yàlla wàcc yërmandeem ci moom daayira bi nga xam ne ci la nekkoon suñu borom sàmm njaboot gi ñu ànd lig doxal ko ndax liggéey sëñ waa ni ma koy wax saa su nekk du kenn rek ñëpp la ku dem man ngaa wuutu sa ku fi ne mën ngaa wuutu sa morom kon nañ xam ne mission moo jeex mu dem waaye ñi fi des nañ ànd liggéeyal Serigne Touba xam ne liggéeyal Serigne Touba ci la lépp nekk Serigne Arona ñu ngi lay gërëm di gërëm mbokk jullit yëpp rawatina mbokk taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñëwoon ci dencub Serigne Ato Diagne eh, yan kàddu ngay yëkkati waaw ah, di ñaan si borom yërëm taxaar gaañe suuf dal si kawam rek waaye baax la woon ndeysaan la woon ku baax la woon ku baax la woon di ñaan suñu borom yërëm ko taxaar ko àjjana rek suuf dal si kawam baax la ndeysaan ñoom yu baax lañ ko baax lañ ko liggéey bu mu daan liggéey ci yoonu murit ah. euh, bari na na lool na dëgg yàlla ah, na lool na baax suñu Serigne Atou Diagne nekkoon responsable moral bu daayira muxaddamatul euh, daayira xisbu euh, tarxiya mën naa ko wax rek ndax daanaka ñun ñëpp benn lañu jànniti rek lañu am te mooy liggéeyal Serigne Touba muy koo xam itam lañ ko mas xamé xamee lépp mooy liggéeyal Serigne Touba bëgg ko lool am yité lool ci liggéey Serigne Touba farlu ci lool itam don ci jambar lool yalla may ko ñett yo xamné ne ko ne ko yalla dajalé ci mom muy xam-xam bu mat sëkk ak fit bu mat sëkk ak jom ju mat sëkk lool nak lu ak ak ak xel mu rafet mu reuy mu yaatu ko yalla may xam-xam bu mat sëkk nak may la xel mu rafet may la fit bu reuy war nga mëna taxawal lu reuy sun borom nak jagleel na mu taxawal lu reuy te mooy daayira bi nga xam ne moom la bokkoon tuddoon daayira étudiant murid di dund ba tudd daayiratu xisbu euh, tarqiya yaakaar naa ne jëmmal na ci loo xam ne adduna sëpp xam nañ ne marqué ne empreinte am yoonu murid kon nag dañ koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne moom la doon liggéeyal ci toolu Sëriñ bii mu nangu ay jëfam yu baax yëpp te jégal ko erreur ci rëccam yëpp te xaare ko àjjana te teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi lii nga xam ne itam ci la nekkoon doon ko yëngu doon ci yëngatu muy liggéeyu Sëriñ Tuubaa euh, mu nekk loo xam ne day jëm kaw rek bañ a suuf ñam fi bàyyi itam ñi ngi leen koy jaal bu baax di tambalé Serigne Atou Diagne eh, Serigne eh, yousou Diop ak mboolem wa Hizbut tarqiya ci turu daayirat Muqaddamatul khidma Serigne Afia bu sami president bi ak ñi nga xamne ne ñoo bokk ci eh, bureau daayirat Muqaddamatul khidma yépp ñi ngi yëkëti suñu jaal di ko jaal Cheikh mohammedul Muntaqa di ko jaal itam mboolem membre yi tarqiya yépp diko di ko itam mboolem murid yépp di ñaan suñu borom jërëm ko te jéggal ko te xaaré ko aljana te euh, teg loxo ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey euh, ba faw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaam. ñu ngi lay fay ab nuyoo. Euh, yan. ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajo inna ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di. ñaanal serigne muntahal basir, sunu borom yagal ko lol te and ak wér di yoonu murid ak umma islamiya nah jambar jóge na fi liggéeykatu cheikhul khadim jóge na fi di ñaanal ñim fi bayyi sunu borom may len xolum muñ te deugar ci liggey bi nga xamanteni mom na len serigne atou diagne bàyyil nah sunu xol dafa toy ba ndax mënuñoo wax ci moom lu sori ndax liggéey bi nga xamante ni moom la ñu gën a féetal mooy xasida yi sëriñ Aatu da cee ne yóbbu xasida foo xam ne jàppoon nañ ne xasida du fa àgg muy ci àdduna bi yëpp kon nag fee mu ne moom buñ ko wanee ginnaaw dana xam lan mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa dana xam lan mooy liggéeyal yonent bi dana xam lan mooy liggéeyal liggéeyal sunu borom ñu ngi koy ñaanal nag fee ne sunu borom yërëm ko te jéggal ko ci barkeb cheikhul khadim tay ji nak lay xam lan moy liggéel serigne touba lan lay jëriñ doom adam lol lañ mëna séré ci mom ndax lepp lo xamanteni mission la bo xamanteni kep juroom juroom ben khalifa yi nga xamanteni jot nañ fay jaar tañ nekkon fi té ku ci melni serigne eh, Abdul Ahad sëriñ Salu, ku ci melni ni Abdul Khadir, ak alhaji bara ku ci melni ni muntakhal bashir ñoom ñëpp làq na seen ngërëm te ba ci sëñ Sidi Muxtaar mm. te bu ci làqoon ngërëmal kenn dong mu doy sëkk te ñoom ñëpp mu ànd ak ñoom làq seen ngërëm ba ci ñi nga xamante ne ñooy toogaguñ xalifa te nekk ay sëti Seexul Xadim ñoom ñëpp sëriñ Atou Diagne làq seen ngërëm ndax liggéey sëriñ Tuubaa benn la ba ci seex si nga xamante ne ñoo àndoon ak sëriñ Tuubaa mag ñooñu mm. sëriñ Atou làq na seen ngërëm ndax fu ci ne def na fa dara ba tiwaawoon uh-huh. sëriñ Atou dem na fa def fa dara jërëjëf te li mu fa defee mooy xasida Seexul Xadim yi nga xamante ni uh-huh. mo nekkon mission ci aduna jërëjëf jërë ngeen jëf. macha Mbacke Serigne khari ah. Mbacke. Ah. jërëjëf Mbacke kon ni ngi lay gërëm. Ah, alaaji Cheikh Ka ñu ràññee la sa taxaway sa dig ak Serigne Khadim ngey jankat ñu ràññee la ci xaside yi tay nga ñew fi ci denc bi yan kaddu ngay yëkëti waaw tay day lu rëy amna tay tey waaye amna ndax ki doon liggéey serigne Touba ku ñew fi da nga xamni liggéey serigne Touba rek mo jar muy serigne Atou Diagne am na ñu ñëw fii ci armée yoo mosuñu gis aatu sax dañ koy jiitale rek waaye liggéey gi mu doon liggéeyal sëñ Touba moom lañ gis ci moom looloo waral ñu bàyyi seen nit yëpp ñëw dan naa ñëw bàq yi denc bu nekk waaye denc bii maa ngi koy doo gis fii sëñ nag dafa doon nit ku yàgg engagé wu ko xam jàppee ba léegi bàyyiwul mu doon liggéeykat boo xam si dafa defar ay nit ñu bari am na col gu ràññee goo xam si ñëpp daan na ko sol waaye bi mu ñëwee moom da ko gën a wanewaat foo ko sol dañu la yore is bu tarixee asalem yee teel na faa dem lool ba fay dem boo gisee mu am fa euh, kër daara yu bari yu mel noonu li ko waral mooy dafa teel a dem daggal fa dongay jiitu fa ndax fa lañ ko waajale waaye Serigne Saliou Mbacke mu mag mi mi nga xam ne si moo defar gone yi moom daram du asal ndax moo ko jëloon teg ko ci loxol Serigne Mountakha Serigne Mountakha tey avant ñu julli ajjuma dem na fa buñ jullee ba noppi dellu na fa kon am nañ mbégte ñàkk nañ nag ndax kuy jàng xasaayid rek wala nga di ci yëngu suñ aatu bu demee yow la demal ñoo ngi koy ñaanal yàlla nañ ko wuutu wuutu koo xam ne si ni na mu ko bëggee woon noonu la ko amee ndax ku dem ci université bi soo na fa loo xamante bi nii ñu bari ñu baree bari am na ci cofeel bi mu ko defee waaye ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko ko àggaleel ñoo ngi ñaan fii mu tëdd nag yàlla na ko fa suñ Tuubaa gën a taxaw suñ xol fees na loolu tey ndax dañoo ñàkk koo xamante bi nii sembul la ci réew mi sëñ Arouna jërëjëf jërëjëf a Aata ba noppi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim wa ni ñu ngi nuyu ñëpp te ziar bu baax a baax xanaa muy loo xamante ne kiis bu rëy la ci muy loo xam ne mu ngi mel ni ab xale boo xam ne def doon bàyyeegul ween wi waajuram waajuram dëddu aduna noonu la mel ci ñun tey bés la bu tiis la ci ñun bu tiis la ci ñun xëy na mënuñu ko naqaru ndax jëfu suñ borom la te suñu Tuubaa dafa wax ne ko ki nga xam ne maanaam du jóg ci naqar mooy ki nga xam ne li suñu borom dogal neexu ko looloo tax mënuñu koo ne su su maanaam métti na ci naqar la ci ñun waaye tiis la ci ñun lool boo xamante ne ñu ngi koy ziare murit yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew yëpp. ñu ngi leen di jéglu bu baax a baax bu rafetee ngeen xam ne. xëy na suñ borom moo ko dogal. fekkente ne ñi am na nu mu mel noo xamante ne rafet wuñ ko. ñu ngi koy jéglu ñëpp too xam ne bëggoon nañ mu rafet xëy na fu tolluwaay gee tax rek ñu ngi leen di siyaar bu baax maa ngi siyaar bu baax waa Abdoulaye Diouf foo jógee euh, quartier Hizbut Tarqiyyah nekk nekk États-Unis waaw euh, membre Hizbut Tarqiyyah depuis vingt ans nekkoon naa fi xam si ñaata bu baax ñu seq ak moom ay liggéey yu am solo ba si seen télévision bi yu bari projet yu bari Amérique man la ko doon seexal kon day nit koo xam ne mën nañ wax ne commandant Sëñ Touba moo wàcc tey liggéey. Mhm. koo xam ne ku euh, loo seq moom nga nekk si daara ji nga ñàkk see nekk nga génn si daara ji day am relation boo xam da koy téye ak yow. boo xam ne saa soo ko gisee rek da ngay xam ne am na lu la mën a dolli. Mm-hmm. waaw kooku mooy sëñ Atou Ndiaye te tey mbooloo mi ni mu ko mi ñu gis wane na ko. Mm-hmm. waaw soldat la si sëñ Touba pionnier la si yoonu Mouride euh, révélateur la si yoonu Mouride kooku moom loolu lañ xam si moom te di ko ñaanal sëñ Touba dolli ay taw fee xam mm-hmm. euh, te lii gëj fi. di ko jaale sëñ Mountakha Bachir. kon jaxasoo woon lu bari. waaw waaw bu baax a baax man projet même télévision Hizbut Tarqiyyah Al Mouridiyyah man maa maak moom ñoo liggéey si projet waaw man si daara ji laa màggee dem États-Unis jàngi euh, lu bëri bu ma saan ñëw Amérique si sama kër lay nekk États-Unis kon xam naa ko bu baax a baax maanaam boo demee si sama sama comme pa doom comme doom laa si moom plus que ma nekk membre nekkoon membre Hizbut Tarqiyyah génn naa Hizbut mais terewul dama relation boobu dañ ko téye su lu bëree bëri loolu moom xa jaxasoo nañ ku baax la ku ku ku ku soldat suñ Tuubaa daal la loolu lañ si am wax lan moo la gën a marqué ci ay taxawaayam ak liggéeyam waaw liggéeyam moom ñëpp xam nañ ne màggalu suñ Tuubaa gi bu tolloo fii wala mu mel nii tey ba jeunes yi di si participer am na lu mu si def loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que bokk na si ñi nga xam ne ñu njëkk a taxaw di di di di di révolutionner yoonu murit di màggal gi si yoonu murit waaw loolu jërëjëf aleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay ah, tur wi naka la Cheikh Oumar Tall de lañ may wax bokk ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah waxaw aha kon hmm. euh, sa njiit moo fi bàyyi ko Serigne Atou Diagne yéen kàddu ngay yëkkati waaw waaw kàddu yi may yëkkati dey moy xana dole serigne sante serigne Touba bu baakha bax ndax euh jëf na ba wacc te liggey liggel serigne Touba rek la doon def liggey bu rafet ñu and ko mom ay ati at ndax mi ngi ko tambale won ci serigne abdoulaye Lahad Mbacke teg ci ilimaan serigne Abdou Khadir Mbacke serigne Saliou Mbacke serigne Sidi Mokhtar serigne bara serigne Sidi Mokhtar ba ci serigne Muntaxa mi nga xamne ne taxay mhm. waaw waaye li ah. mu def fi liggéey bu am solo. liggéey bu am solo boo xam ne moom. maanaam dégg ko nii ci nopp rek du tax nga xam kon tey jàmbaar dem na. waaw jàmbaar dem na. waaye du euh, euh, dana fekk ko am pay muy Serigne Touba. ndax mbooloo mi boo ko gisee. xam ne jiwaay. Mm. liggéey bu rëy la liggéey ci kaw suuf. te Serigne Touba dana ko fay. Mhm. incha allah jërëjëf sëñ Mountakha moo ko taxawee. Mhm. te ma ngi ca Saalam ba toog di ñu nekk. ma ngi ca Saal ba waaw ma ngi ca Saal ba toog fa lañ ko bay. kon nag nañ sant Serigne Touba ñun ñëpp. te xam ne ab liggéey bu nangu rek la. Mhm. waaw liggéey nag boo matalee rek dem. nañ ko xool ci xalifa général yi fi bàyyee ko lolu tax ñu muñ ko muñ bu rafet xamne insa allah rabbi hmm. ah sëñ Touba dana ko fay hmm. mboolem ñi fi tew sax seigne Touba dana len fay jere ngeen kon jamono ji da ngeen di dal di toog di deglu ndigal dañuy dellu ca eh, eh, eh, sëñ Muntaxa nga fa fa lañ ko bayoon hmm. dañuy delu wat ci mom lu mu wax rek ñu def loola bu ne yow na mbooloo mi ñu yewé ko bu ne be sangam ñu ñaanal ko ñu tok xaar ñaan gi loolu dal lañ am pass pass bobu lañ am jere ngeen jëf kay koy seeral da koy bi mu seigne Touba ñaan liggéey bi wéy ba faw rek yàlla na ci sëñ Tuubaa jàppal boppam te taxaw li fi bàyyi lépp parce que Seexul Xadim jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. ñu ngi lay fay. ah xanaa sant yàlla yonente sëñ Tuubaa sant ko gërëm ko rek tey ñaan yàlla sunu borom jéggal ko dugalaale nu ci njéggalam ndax liggéeyal na sëñ Tuubaa liggéey bu mat waaye defe naa sëñ Tuubaa fay na ko pay gu mat. kon nag yal na yàlla taabal ci pay gi ak yaakaar jëpp mboolem li julli di yaakaar ci moo gi ak taalibe yal na yàlla wéyal loola ta tàbbal na ci biir jërëjëf sasakallaahu xeyr waaw li sëriñ bi wax rek moo ci ne bis bii ku ko fekkiwul doo xam liggéeyal sëriñ Tuubaa loolu di añam bis bii ku ko fekkiwul doo xam liggéeyal sëriñ bi lu di añam sëriñ bi des koy liggéeyal kenn du ko waxe yàlla na ko àllaaxira ku fu jóge i ngaa takkaat sa ndigg liggéeyal sëñ Tuubaa xam liggéeyal sëñ Tuubaa ci lépp nekk salaamaaleykum sa jërëjëf. ñu ngi lay nuyu. ah yan kaddu yu témoignage ngay def ci sëñ Ato. xanaa daal ma ci def yenn kaddu yu uh-huh. témoignage. du wees moom dafay ñëwoon ngir liggéeyal sëñ Tuubaa. Uh-huh. liggéeyal sëñ Tuubaa boobu mu ñëw nag dañ koo àndan. waaye mosu cee nangoo noppal boppam. ba nii ko sëriñ bi wàccee yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko te yàlla taas ci barkeem. ak la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi